waaw lii li may wax rek ñuy sant yàlla bu baax julli ci yonent bi loolee salaam di ne tey li ñu indi fii session extraordinaire la ñu war a discuter ci code électoral bi muy initiative boo xam ni cent quinze députés moo ko jël muy député Benno Bokk Yaakaar Taxawu dakaar ak coalition Wallu donc loolu pour ñu mën réviser code électoral bi lii ci am solo mooy li ñu d'accordoon ci dialogue national bi yëpp ñu indi ko waxtaanee ko assemblée nationale liñ ko d'accord ak président de la république validé ko loolu loolu moo ñu fi indi moo tax ñu discuter ci tey ngeen gis ko suba ñu war a dem en commission suba ñu war a dem en commission suñu jógee suba commission ñu dem ñëw samedi en plénière donc daal di wax ne loolu yëpp dañu war a sant ne réew mi jaloog moo am solo dialogue boobu biñ koy def sénégalais yu bëri gëmuñoon ko mais du ma wax sénégalais yu bëri sax gëmuñoon ko dama ne quasi totalité sénégalais yëpp gëmoon nañ ne jaloog mooy solution politique fi réew mi tolloo président de la république initié ko parti yëpp yu ëpp ci parti Sénégal yi ñëw toog ci dialogue boobu société civile toog ci tey su ñu demee ba jaloog bi indi ay conclusion ñun ñuy majorité bi ànd ak président de la république suñu devoir mooy ñu voter li conclusion bi gis ngeen li fi xew semaine passée voté nañu mbiru parenage bi ak lépp lu demoon ci constitution bi tey deuxième phase bi la pour ñu mën a voter pour mbiru code électoral suba dinañ dem commission technique commission des lois suñ fa jógee samedi ñu ñëw plénière mais li am solo mooy li ngeen gis initiative bi ngeen gis Benno Bokk Yaakaar 83 députés wala 82 tey gis ngeen 115 députés ñoo jël initiative dugal loolu ci ordre du muy wane ne ñu am yaakaar que ne waxtaan bi dina enrichir dina gaaw te dina jural Sénégal njëriñ. yan assurance nga mën a jox ñi am ay doute ci euh, kaw xarit Khalifa Ababacar Sall ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Karim Wade. non xam nga man mënuma wax ci. mbiru mbiru la loi dafa impersonnelle tey li ñu indi fii ay modification moo ñu indi ci code électoral modification yi santul Sall santul Wade santul Mané li mu sant mooy Sénégal képp ku nekk ci condition yooyu tey di nga am mën a nekkaat candidat wala mën a nekkaat électeur parce que la problème c'est pas d'être candidat avant d'être candidat dañu lay permettre nga mën a inscrire ci liste électorale loolu lañ visé candidat nag ka koy nekk yow yaa koy choisir choix personnel la mais bu nit ñi jaxase ni fii ñëwuñ fi pour permettre Karim Wade wala xalifa Sall mu nekk candidat dañ fi ñëw pour permetre képp ku nekkoon ci conditions yi nga mën a inscrire ci liste électorale. ku inscrire ci liste électorale am na yeneen conditions yooyu remplir pour mën a nekk candidat de la république man mënuma tontu ci ndax. dañ ko def pour ñaar ñooñu mais dañ ko def bépp sénégalais bu nekk ci condition. mën a inscrire ci liste électorale. actualité bi également mbirum Ousmane Sonko la bi yoon teg loxo dissoudre partem ñu bëri jàpp ne politique da cee lalu moom su nekkee ci mbir lépp ci lalu politique moo lalu ci lépp yéen ay journaliste ngeen am nga lu ñuy waxee code de la presse da ngeen koy respecté bépp parti politique wala association ci réew mi dafa am lu ñu ko tegal lu mu war a respecté. su ko demee nag ba wàcc loolu dafa am ku ñu dénk constitution bi mooy président de la république ku ñu dénk muy doxal di xool mbiru loi yooyu mooy le ministre de l'intérieur dem nañ ba xool ne parti boobu wàcc na yoon wi parti politique war a tege li jikki mooy ñu saluer ko mais waruñu yem ci loolu du question wu Pastef ak violence bi am mais parti politique yu bëri tey amuñu seen raison d'exister dans ce pays y' a plus de 300 partis war nañu gën a continuer loolu ba parti politique bi remplir les conditions ñu mën la dindi nangu liñ la li droit yi ñu la joxoon parce que droit dafa ànd ak ay